bor buñu ñu fay la lu ñu waroon def la depuis longtemps ñu ngi koy doog a def euh, comme niñ ko rappelé nag yu bëri nag euh, souvent euh, du ministère bi donc dafa am yeneen tamit ministère ak lu bëri loo xam ne mën na indi ay gàllankoor mais c'est pas le plus important li am solo tey jii mooy régler problème mu enseignants yi ndaxte dafa laal seen carrière am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla tardel nañ leen euh, am ñoo porté préjudice euh, kon di euh, di tamit engagement ni ñaan nañu mu amati décision côté direction des ressources humaines ak côté DEXCO ak côté direction de la formation et de la communication ay dogal vers le sens de la dématérialisation euh, da nga ko daan téye ay këyit ay PV muy jël temps yooyu yëpp su dee dugal nañ ci ordinateur bi euh, xëy na mu gën a gaaw te jël nañu engagement ni fii ba juróom benn weer six mois euh, négocier nañ ko man négocier naa ko ak sumay partenaires sumay collaborateurs nangul nañ ma ko ni dans six mois incha allah examen yooyu yëpp dañ ko mën a dématérialiser donc loolu suñ ko defee dina am solo trop. Euh, je pense que nous na yo ko leneen président mo ci premier ministre dans la collégialité Té, bu ba wax ministre ñu ngi jàppalante te euh, am ndimbal ministre des finances ministre euh, fonction publique collectivité locale ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci mbir bi ci euh, carrière enseignant bi maa ngi continuer di tàllal loxo parce que enseignant yi dañu am solo euh, jël nañu engagement ñu nag syndicat yi dox def euh, ma ànd ak ñoom xam naa ni bu boobaa xëy na ñu teg ma syndicaliste dem négocier ak sumay collègues ministres pour ñu jàppale ñu par exemple suñu collègue de l'urbanisme bëgg nañ ko ñaan mu jàppale ñu ci programme logement bi mu am mu jàppale ñu bu baax a baax pour euh, jox Ben quota

Euh, di wax ni euh, euh, am na jéego yoo xam ne dox nañ ko mais bor bu ñu doon fay la mais am na yu bëri yoo xam ne des na te nañ ci góor góorlu am na actelier boo xam ni très prochainement war nañ ko tenir benn conclave pour waxtaan xool lan mooy mën a dimbali école maanaam lan mooy mën a dimbali acteur bu mel ni enseignant yi pour ñu mën a gën a mën a def seen liggéey.